jërë ngeen jëf mbokk Leewtoo TV tey ñu amaan mbégte présenté leen pour présenter leen troisième numéro euh, émission bi ñuy tuddee jotaayu làmb jotaayu làmb tey am mbégte dalal Baye Tindooy Baye Tindooy mooy président des écuries de Yoff membre également de l'ARERS l'ARERS moom mooy association des responsables des écuries école de lutte du Sénégal Père Baye Tindooy maa ngi lay nuyu. waaw mais ñu ngi lay fay ñaan yàlla euh, la ñuy door nii. dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabil alamin amiin ñu ngi fi également comme invité Doudou Faye Doudou Faye moom mooy président de l' association nationale des amateurs de lutte sans frappe nekk également membre du front pour la défence des intérêts de la lutte simple Doudou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Mhm. fay waa Leewtoo TV ñu commencé émission bi ak per Bété Ndoye père yéen a ngi woon ci euh, assemblée général jamono yii di ñëw jamono yi li passé ñu falaat la ci bopp yoof nan nga dundee euh, fala falaat boobu. daa mais sant yàlla sant yàlla comme ni nga wax rek xam nga ñun yàlla moo ñu natoo làmb. Mhm. te may profité di nuyoo sama mbokk mi. parce que fa mu bokk xëy na ñoo fa bokk. Mhm. da daa man fa bokk. Mhm. dama bokk ci comité directeur bi. defe naa bu ma jumul sama carte membre ngi nii boo xam ne du jànjeekoo mooy kii ba uh-huh. donc maintenant yàllaa ñu nattoo làmb uh-huh. après ma doon président euh, écurie Yoff uh-huh. ñu def AG daawati jéeg ñu falaat ma ba ren rek def nañu ñu reconduire pour une durée de quatre ans waaw ah, mandat bi kon pour quatre ans la. bii pour quatre ans la. d' accord bii mooy sa dernier mandat wala fas yéene nga nekkaat candidat après bu jeexee. non li ci kanam de mhm. a xam. tout dëgg mais xam nga am na fa boo fa tolloo. Mhm. moo sa bopp. gars mhm. yi da da nga leen di jàppale rek te yàlla tax. waaw loolu la pour le moment daal euh, j'ai mandat de quatre ans en cours ci la ñu ne ginnaaw bi ñu la falee lan mooy sa programme pour développer Écurie Yoff euh, Euh, développement premier objectif mooy. boole ñaari écuries yi. Mhm. Yoff dafa moon ñaari écuries mhm. te Yoff pratiquement benn dëkk la. Mhm. Euh, ñoo bokk lépp. dëgg la euh, écurie Yoff ek écurie Yoff mbooloo. keroog bu ñuy âgé tout ce qu'on comme autorité. loolu mooy seen vœu. aussi bien autorité municipale yi religieuse que coutumière. actuellement ñu ngi ci. bu ma mu dimanche prochain en principe war nañu dajee waa Yoff mbooloo. Mhm. pour vraiment def ñaari écrit muy benn. loolu mooy objectif premier. Mhm. objectif deuxième. mooy la ñu bëggoon rek ba ma ñëwee année bi ci topp lañ jël euh, ngemb d'or. oui ñoo ko jëloon. Mhm. Euh, Malick Niang moo suñu tête yàlla def na amagul combat. te ndëkk lu ñu gënal moom mu ñëw tooyal ngembam. d'accord loolu daal si samay objective la. làmb rek kii bari nañ dëkk. loolu daal si objectif bi la. d'accord ñu ki taxawee foofu dem ci Doudou pour ñëwaat ci yow Doudou. Euh, bu ñu ko xamee Matar ba avant ñu koy avant muy fal bureau bu bees doon na def ay audience di recevoir ay nit boobu ñu dégg leen ngeen génn ne Matar ba recevoir leen euh, ruur leen parce que daf leen a xeeb pourquoi ngeen waxee noonu. waaw <coughs> avant tout tamit. Mhm. il fallait que ñu leeral parce que am na am na audio boo ma envoyé tamit ma gis ko. Mm-hmm. te nit avant tout maa ngi nuyu Père Bayte. Mm-hmm. di lu euh, confiance bi ñu la joxaat. Mm-hmm. yéen bi ñu la yéen tamit xëy na yàlla na ko yàlla woyofal. Ah, comme li nga wax rek natoo lamb rek moo tax. vraiment yéen ñi nga xamante ne ni ay mag ngeen bu ngeen nekk ci lamb natu bi leen yàlla teg la. kon nag euh, yàlla nañ ci am ndam. amiin tout rek seetaan na. ñu ñëw naañ euh, ñun ñi intérêt lamb taxu ñoo jóg ak suñu intérêt bopp. si Matar Ba d'abord après dinañ agsi ci loolu. <laughs> Matar Ba audience yi pourquoi ngeen ne daf leen a xeeb. man li ma wax mooy manque de considération. Mhm. liit sans faram. oui kooku it kenn mënu ko dindi. Mhm. li tax kenn mënu ko dindi mooy. Mhm. mënoo di concerté ñëpp ñu bokk ci lamb. san autant nga concerté nga woo waa liit sans faram. woowin bu ñu woowaal it ñi ci jot a woo mhm. woowin boobu pour man du woowinu cër mhm. woowin boobu lañ ma woote woowin boobu man du ma ko wuyu parce que ku deful sa bopp responsable responsable laa def sama bopp mënuñ mhm. ma woo onze heures ma nekk sañcee Malika ñu ne ma kaay ministère midi yaakaar naa ne yéen ñi nga xam ne ay taskatu xabaar ngeen képp ku ñu mos a recevoir tey dañu naan suba ñoom diw la ñuy kon woo biñ ñu woo ñun du woowu respect du woowu fonk waa litre cent franc kon Matar Ba wégul litre cent franc parce que bu wégoon litre cent franc mm-hmm. buy woo bay woo ay communicateur mm-hmm. war na woo ñi nga xamante ne nii ñooy doxal litre cent kon mën nañ gis ne mm-hmm. manque de considération boobu ba suba moom lay wax te moo am pourtant am na ñum ñum ñum dajal dalaloon ci yéen dalal na pas Sémou par exemple dalal na ay promoteur également ci lutte simple est-ce que mënoon na def ku nekk euh, comme da ngeen xaw a sakan bu euh, jéglu ci kàddu gi bu dee euh, ñagas na est-ce que du ngeen li ngeen li ngeen bëri moo tax mënul dajaloo ñëpp mu seppi ñenn rek woo leen. xam nga lan moo tax dajale woo woo woote ñoom Pangor Sébou boobu. Mhm. Ousmane. Mhm. woo na Pangor Pangor Sébou. oui midi une heure mhm. mu ne ko kenn woowuñu. Mhm. bañ ma woowee ma ne leen du ma wuyu woote boobu. ci dañu mhm. profité woo ñoom Pangor Seck ak ñoom alfa pour wane ne. Mhm. woo nañ nit ñi woo nañ Walit sans frappe kenn. mais woo woote bi ñu woo Pangor Seck. ak woote bi mu woo Alpha Samb. kooku ñoom la engagé ñoom. d' accord Pangor Seck mënuñu représenté mënuñu représenté ñun. d' accord ñun ay amateuru làmb lañ. di jànkonteel jafe-jafe se Seck yor école di jël xaalis di ko jëriñoo ci ci ci wàllam. ndax moo yor ak moo yor arrêt Adrien Senghor. dëgg la wooteem mm. boppam la engagé. dëgg la woot demu Alpha Samp boppam la engagé ñun en tant que litre cent mm-hmm. di dund lu neex di dundu lu naqari. Mm-hmm. di jël suñu alal di ko def ci làmb. Mm-hmm. den ñoo war a woo lan ngeen gis ci làmb lan ngeen bëgg ci làmb nan ngeen bëgg làmb. loolu mooy logique mais bu ñuy wal ay pas yoo xam ne ñoo moom arène. loolu intéressé wu ñu parce que demaluñu ñu foofu. dëgg la dinañ ñëwaat ci yow. Pape Baye Tir. nga ko sànq seen problème bi ngeen di rencontré mooy ñaari écuries yu nekk Yoff. ok mais loolu ban problème la doon def ci Yoff no enfin du problème parce que euh, dañ na ñaari écurie mais presque benn la parce que ñooy entraîné non mhm. benn entraîné moo leen boole mhm. te vraiment ñoom benn la daal mhm. c'est que comme que actuellement dañu toll si massifié parce que ñaari écurie si benn koñ euh, te fi mu ne bu ma juumul on va vers une fédération dafa baax écurie yenn yi yi nga xam ne trop écurie lañu ñu dem bokk yenn yi loolu rek la mhm. te li mu valable pour ñun moom la valable pour ñëm dëkk d'accord waaw en tant que président yan jafe euh, jafe-jafe nga doon rencontré ci si biir écurie en tant que président non jafe-jafe c'est relatif xam nga nit moom boo xasee bu dugg rek attends-toi mhm. parce que vraiment euh, làmb ay moyens la te làmb moom ay sur cent personne defe naa deux trois ñoo si réussir. c'est vrai du maintenant ñun ñu yàlla nattoo ñu ne ci. Mm-hmm. ñun yàllaa ñu jàppale rek. Mm-hmm. ak ñu ci mel ni ay bonne volonté. Mm-hmm. ñëw di ñu jàppale. parce que bu dee financièrement daal vraiment métti na trop. exactement waaw euh, kii financièrement euh, parlant fan ngeen di jëlee ay fonds pour mën a financer activité écurie bi. waaw ñun dëkk di fait dañu dëkk dëkku Lebu. Euh, on a notre maire ministre Abdoulaye Diouf Sarr. chaque année vraiment dana génn. Euh, benn budget tant soit peu joxe ko ak bon volonté wi ne foofu mhm. waaw ñu ku ñuy jàppale jàppale ñu mhm. loolu dal en grosso modo loolu la te nag xam nga mbër moom li na si gannaaw combat day metti mhm. ba vraiment ku ne ne euh, amuñu soxla vraiment bul dëkk. waaw mbër yi en tant que euh, membre écurie yi. Ah. dañuy participer chaque mois wala nan la seen participation ci pour écurie bi dox lan la. waaw très bien xam nga foofu looloo tax xam na dinaa ci gën dugg boo duggee si affaire kii parce que actuellement. Mhm. mouvement bu ne boo ciy dugg. Mhm. dafa am réglementation bu la ciy tey règlement intérieur. Mhm. su fekkente ne mbër dafay ne si écurie. te buy waxaale waxaale jël xaalisam buñ ko fayee mu jël lekk ko moo xam ne jaay ma kii am ñëw di xool ñi ñi ñi muy àndal loolu du kii fa ñu jëm dëkk mhm. mbër buy dugg incha allah maa ngi kii bu la neexee nga dugg boo la neexal nga bañ mais daal daañu signé contrat boo xam ne mhm. mbër mu fa am engagement quelconque mhm. sa xaalis moo xam sa manager daañ def de sorte que daal looy kii dana am loo xam ne si génn dugg ci écurie bi loolu moom c'est le minimum. loolu moom vraiment ñun ren loolu lañ bëgg incha allah. Mm. te nag waa ARELS ba nga xam ne fa laa bokk. Mm-hmm. Euh, xam naa ak sébo ci. Mm-hmm. mais defe naa fa lañ mm-hmm. parce que tam dañu bëgg am règlement standard boo xam ne képp koo xam ne da nga bokk ci ARELS. Euh, nga sukkandiku ci. d'accord waaw. d'accord merci père euh, Doudou bi ginnaaw ba Matar ba defee audition yi. Manga 2 la jël teg ko ci boppu lutte simple ba nga déggoo nouvelle boobu da nga ci kontaan wala kontaanoo ci. non man quant à nag ci eh, problème mu màngal. Mhm. bëgguma di ci xuus. d' accord parce que nag màngal. Mhm. Eh, du sama ennemi. Mhm. mais nag mën nañ ba bañ a gis-gis. c' est vrai. nag day jaawaale nit ñu teg ko ci mbir te àndoo ji. bokkul nag bokkul ne da ngaa contre nit ki. c' est xëy na man mànga. contre ma ko mais mun naa ne li mu jiite lamb ji neexuma man. lu tax neexu la. non li tax neexuma moom xëy na. Mhm. bugguma ko di wax ci télé parce que dafa nekk débat boo xamante ne dafa xaw a ci sama xalaat. ma ko di wax. ci boo mhm. xamante ne nii ci ay télé ay kii la. mais xam na. Mhm. xam na. te eh, ñi may déglu xam nañ. d'accord la tax buggu la tax nag bugguma moom mu jiite làmb ji. moom ci boppam xëy na bu ñu demee ba ci biir a biir wax dina mos a ñëw ñu wax ma wax lan moo tax man bugguma mu jiite man. est-ce que am nga yaakaar ne la euh, dina ji jëme la lutte simple fu fu fu fu jëm kanam est-ce que dina ko jëme fu sori dina ko développé maanaam. kooku nag yàlla rek la wóor. Mhm. xam nga moom comme dañ ko fee tàmm. dina ko yóbbu ci kanam. Mhm. yeggaguñu ci dina ko yóbbu ginnaaw yeggaguñu ci. vraiment mënuma avancé. ci dina ko yóbbu wala du ko yóbbu. d'accord dañu gis bi ñu ko falee amagul quelques jours deux wala trois jours ngeen def conférence de presse yéen waa front pour la défense des intérêts de la lutte sans ngeen def conférence de presse lan moo waraloon conférence de presse boobu. non li waraloon conférence de presse bi ba tey mooy rek. Mhm. balaa ngaa tanal nit nit. Mhm. da war a laaj nit ñooñu kan moo gën ci yéen. c'est vrai tollu tolluwuñu ci foo xamante nii da ngay tëju rek. Mhm. indi indi ma ne jël leen du fay mooy jiite. kooku dañoo dépassé jamono jooju avant Matar ba di. avant Matar ba di tabb kuy jiite. bind nañ def nañ ñu ñoo ñun waa acteur u lutte sans frappe bind. Mhm. ne ko képp koo fiy teg na nekk ko koo xamante ne nii def ñoo jege. Mhm. nit ñi mënuñu bind lettre jox la ba jot. Euh, réception bu wane ne yow jot nga ko. Mhm. ngay woote ngay woote munoo woo nit ñooñu laaj leen li ngeen wax fan ngeen ko teg. Matar ba bu ñu woowoon li ngeen li bu ñu laajoon li ngeen wax fan ngeen ko teg dinañ ko wax ne lii ak lii ak lii ak moo tax. mais comme def na li mu def dënk na ka muy Euh, yal na yéen bi woyof ci kawam. mais man nag en personne. Mhm. Euh, mun naa ne gënaluma. la tax gënaluma nag. bés dina ñëw. Mhm. ma wax li tax gënaluma. d'accord gis nan euh, waxuma maa sax mais équipe bu bees CNG bu bees bi bi ñu leen tegee wàññi na licence su promoteur yi licence su lutteurs yi ak 1000 francs yi ngeen doon kaas pour que lutteurs yi di ko verser avant ñuy bëri loolu tamit dindi leen ko loolu loo war a saluer la nest pas loolu loo xam ne nii neex na la ba nga ko déggee. xam nga tamit dafa am loo xam ne il faut nit ñi xam. il faut nit ñi xam histoire tuuti. Mhm. gis nga Yaxya Jóob Yékini maa ngi koy nuyu de passage. Mhm. CNG bu njëkk ba bokkoon na. Mhm. est-ce que yéen journalistes yi gëstu ngeen lan moo ko génne woon ci loolu. bu fekkee ne da ngeen di yëngu ci presse. pour yow lan moo ko génne. bu mbir xewee. da ngeen di laaj ba xam nit kii lan moo ko génne. pour yow lan moo ko génne. est-ce que xam nga ne am na commission bu ñu créé woon. buy man commission commission boobu professeur Raymond moo ko créé woon muy uniquement pour les san francs. d' accord Yaxya Diop Yékini moo ko doon coordonné. Mhm. mooy nan lañuy def ba litre cent francs jëm kanam. nañ la def ba lii ak lii ak lii ak lii ak lii am. Mhm. pourtant ay nit a ngi biir CNG. Mhm. nit ñooñu ñoo xeex commission boobu. ba ñu annulé commission boobu commission boobu la ñu doon bébét nit ñooñu moom la ñuy doxal tey wax laa la wax nag te attention nag. Euh, bi ma commencé di wax. Mm-hmm. muy ci télé muy ci rajo. du ma mos a toog di wax nit toog ci saalam ne kay day fen. d'accord ña ñan ñoo doon xeex projet Yékini boobu. Euh, loolu yëpp bu ñu yëgee ba ci biir di ngeen ko xam en tout cas dénk nañ nit làmb ji. Mm-hmm. bokk na ci ci nit ñooñu doon xeex pour projet boobu du am ba projet boobu gën naa tax li tax Yékini bokk na ci li tax Yékini génn. maa nga leen dékk làmb ji. tudduma tur. <laughs> ndax man moom li nga gis moom eh, tooñ na waruma ci dara. <laughs> d'accord te bugguma tamit ñu ne ma kaay wax li ma waxoon may kii mais daal xam naa ne bu wax jotee daal dinañ wax mais daal xam naa ne li ma wax nii. Uh-huh. ay journaliste ngeen. Uh-huh. dem leen ngeen gëstu ji parce que nit nag eh, yéen tamit il fallait que man lépp lu ma wax rek. d'accord eh, dama koy teg ci mbedd mi ngeen dem gëstu. waaw Yékini moom bu ñu ubbilee wax dëgg yàlla dinañ kontaan loolu jàkkaarloog moom. loolu moom moom ci boppam moom dëgg-dëgg moom. Mhm. nit ku nit ku nit koo xamante ne tamit boo ko woowee pour ngeen waxtaan xam naa ne di ngeen waxtaan parce que dara ñëw na ko lu dul làmb. d'accord waaw dara ñëw na ko lu dul làmb xam naa ne bu ngeen koy pour def ak moom ni ngeen def ak ñun. Mhm. xam naa ne moom dina nangu parce que looloo ko ñor. dinañ ci sawar bu baax a baax tegal foofu sa baaraam ñu ñëw ñu ñëwaat ci pa ci père Baytir. wax nga fi sànq suñu làmb saison suivante bi ngeen perte ko lan moo tax nan lan moo waral ngeen perte couronne couronne boobu wala titre boobu euh, saison suivante dafa commencé wul bu jeex nag hmm. saison kay dafa fu mu commencé fu mu war a jeexee ah. <laughs> du dëgg ah, mais mais validé nañ ko quand même euh, ma ne comme dafa jeexul ah. ñun daal ñetteel lañ ko doon tegle hmm. euh, ba nga xam ne ji nañ ko deuxième saison bi amoon nañ huit combats ñu am cinq victoires ak trois hmm. défaites te présent on s'est vingtième vingtième te amoon nañu ay combat yoo xam ne war nañ ko bëre. comme ko saison bi jeexul nag. Hmm. ah mais ñu nangul ko ñu ko jar rek parce que dañu bokk ci arels muy waa <laughs> sunu mbokku lébu yi tëggee ji. dama ne woon waaw kay baax dama at. Hmm. jox ko sunu mbokku lébu yi. mais hmm. comme que saison bi àggul dëkk ah ñu nangul leen ko rek. ku dëgg wax nga ko sànq bokk na ci say objectif. la Malick Niang ñëwaat ci laam yi gis nañ ko au moins plus de cinq saisons blanches mu koy tegale. pour yow lan saison blanche yooyu. mais xam nga Malick Niang du tëgg kombaam oui te moom toog ngeen euh, chaque jour dañ koy laaj ndax yaa ngi bëri mun a bàyyi làmba mu ngi fi. waaw mhm. ah, mais le plus souvent ñamuy bëgg bëreel. Mhm. xëy na duñ bëgg bëree moom. waaw ah, mais est-ce que di nekkul di xool adversaire yoo xam ne nii sori nan mm, euh, mais lu mu xool xool xool. Mhm. am na ñu war a bëreel ma ne mhm. lu mu tàllal loxo mhm. nekkee laa bëgg a bëreel mhm. mais am na ñu tuuti ñoo xam ne waroo bëree ñoom lu yenu maanaa ku ne xam na ko mais en am ci làmb ji génn ci yaakaar nga ne war na mën a bëree ren ah kay moom kay daaw sa war na mën a bëree lu tax daaw bëreewul comme la ma lay wax rek amoon na il am pour pourparlers mais xam naa dafa sottiwul ak kii bi instant yi am na ay proposition pour bëree wala xam nga proposition tant que sottiwul rek day des mais mu ngi waxtaan mu ñuy waxtaan ak ñoom incha allah kon daal amateurs yi man nañu xaar Malick ren. mu ngi entraîné chaque jour kay. d' accord d' léegi ñu ñëw si seen waa ARELS. waaw gis nañ temps yi la passé. waaw ngeen organiser benn conférence de presse. Mhm. lan moo waraloon conférence de presse boobu. waa ARELS lan mooy ARELS. Mhm. association des responsables et de lutte du Sénégal. xam boo nee responsable rek sa veut trop dire. oui parce que képp kuy gravité si làmb. Mhm. da nga war a gis sa bopp. parce que làmb damay faral di wax ne dañu amul ndajaay ci dëkk bi. Mhm. te comme nañ koy waxee làmb manager ngi ci ARS manager ngi ci. Mhm. entraîneur na ngi ci. Mhm. Euh, responsable d'écurie moo xam lutteur ñëpp ngi ci. ñu am comme ni ko tuddee ñu am association Malick ñi ngi moo ko jiite. fu ne ñu fay daje pour jéem a def lu jéemale làmb kanam. au niveau des régions am na ku tudd Pambaay moo defe naa moom mu ngi c'est le foofu mhm. temps yi passé dem nañ ay côté Fatick ñoom ñëpp ñu ngi dajale pour ñëw dem rejoindre ARELS mhm. te nag ARELS si boppam dafa bari lan ne si association yi maanaam xeexante bi hmm. moo baaxul dafa dafa am ci ARELS non amul si arels du mën a dëkk non dama ne association yenn yi parallèle yi loolu laa ne bu ñu dajale woon mhm. mais fu ñu ne fu ñu jublu mi gars yi fekk ñu fa d'accord mais est-ce que association yu bëri du bëgg pouvoir moo tax mu bëri ku nekk bëgg mu jiite war naa euh, war nañu bëri association yi waruñu bëri mhm. parce que euh, association des responsables d'écurie mhm. écurie kay lépp a ngi ci biir entraîneur mu ngi ci écurie manager écurie moo koy jël mbër écurie boo koy jël mais ana ban association bu faram manage yi ñun ñoo koy jël xanaa promoteur waaw la ngeen namm ci seen association bi ren euh, man de en tout cas euh, ce qui est li ñu bëgg daal mooy mhm. kenn moo yor ubbi làmb ji dañu bëgg làmb ji ubbi mhm. te ministre bi si boppam mhm. moom moo tey làmb ji ci anam ah moo war a joxe ah xanaa ñun yoruñu sport sport la ñu yor ba la ñu yor ah <laughs> yi ngi football gaa ngi baske lépp ñu ngi koy def làmb ñu ne lu tax parce que ñu ñoo def yi waaw loolu pour yow lan moo war waral loolu ñu accepté làmb nañ ko laaj ministre bi ñu dañ ñu teguli nit nee na ñun daal ñooy dof yi sa waay ainsi de suite mais la ñëpp ubbi ñële ñëpp la ñu def ba ñu ubbi di def seen sport yi ñu noonu mën nañ ko def làmb est-ce que xawula particulière par par rapport waaw loolu la lay laaj. non <laughs> loolu général souvent loolu la ñuy wax làmb c'est un sport particulier. lamb làmb des deux choses soit dañ koy rattaché si sport. Mhm. wala culture. d'accord l'un dans l'autre. Mhm. ko mënti rattaché. war na mën a ubbi ñëpp. d'accord football bi. Mhm. mais day am ay spectateurs. yow daal pour yow lu tax làmb démarré wul motard ba moo respecté wul làmb par exemple wala. moo tee mu ubbi de. moo tee mu ubbi. parce que gis nga CNG yëpp moom la rek. CNG. xëy na dañ ko wax mais te loolu ça fait pas l'affaire du CNG sax. yow CNG noo leen mën a jëlee depuis daaw nga teg leen fi. depuis loolu ñu taxaw di xulli rek. kenn ubbiwul kenn làmbul lu tax loolu. te ñun ñu jël sunu euh, euh, woo nañ ñun su waa ARELS. Mhm. dem nañu réaffilé jox sunu xaalis. te biñ ko joxee pourtant delloo ñuñ ko. te bu tey làmb amul loolu c'est normal d'accord mais dañu gis seen conférence de presse boobu bi mu amee mooy que bi état bi joxee ay et promoteurs yi ah. ngeen jóg ne da def conférence de presse est-ce que du da ngeen bëggoon yéneen également état man par exemple état bi su fekkee dañ jël xaalis duñ ko jox xanaa du pour cent poche mais si ñoom lay dellu écurie boo xam ne dafay am ay plus de cinquante et quelque soixante dix mbër mhm. su fekkee dañ toog une année tout entière bëréew ñu te ñu gis état bi di jël fu ne taaxuraankat yi ku ne ñu lay xaalis jox xaalis. Mhm. mais pour mais su fekkente ne xaalis dafa dugg mhm. fu mu jaar. c'est que la war a jaar. d'accord mais euh, état bi ñu impacté ñu Covid bi impacté lay lay jox ndàmpaay est-ce que yéen. Euh, Covid impacté mënoo passé. Mhm. a euh, kon daal écurie yi Covid bi impacté na leen. man daal boo ne écurie daal na nga xam ne. Mhm. ñëpp ñuy yëngu si làmb ñu ngi ci. bëri yi defe naa su fekkee dafa am kenn koo xam ne dafa impacté. d' accord ah, defe naa kenn pëlewul ci. d' accord nga leen impacté. d' ñu toog ñu ngi ci mois de février. te di mois ngi nii làmb amul. yow pour yow nan nga jàngatee wala lan moo waral saison bi démarré gul ba léegi lan la ñuy xaar ci démarré saison bi pour yow. mbas mi rek. <laughs> mbas mi daal moo tënk ñi. Mhm. Euh, loolu moom loo wax moom te doom du mbas mi moom. Mm-hmm. léegi moo moo ñu tënk de. Mm-hmm. léegi nag comme li père père li pa bi wax tamit. Mm-hmm. père bay fii. xëy na ñun ay responsable lañ comme ñi des. nit ku nekk tamit sa responsable boppam pourquoi pas ñu nit ñi def bay football wala di basket pourquoi pas lamb ji mënul def noonu. parce lamb ji tamit ay kilifa ñoo ci nekk. pourquoi pas geste barrière pourquoi pas fu war a jël cent ñu def ko cinquante. d'accord d'accord làmb ji ba ñu mu ubbi mais Matar Ba def ne huis clos la koy def bu dee huis huis clos est-ce que euh, man ànd na ak lutte simple. kooku moom du ma ci débat. Hmm. <coughs> parce que <coughs> dafa am loo xam ne wax ne jukki ji sax moo gën ngay indi leneen loo xam ne du mun na ne. d'accord ci huis clos bi. non dafa na nekk. d'accord yow làmb lu mu néew néew néew néew néew litre cent franc di nga am di nga am cinquante litres. oui mu néew néew. oui léegi cinquante litres kon foo huis clos. Mm-hmm. lu mat cinquante personnes kay bu ñu duggee ci géew kay huit kilos amatul. làmb amul Sénégal mais mi ngi am Gambie lu pourquoi mu mën a am Gambie mënut am Sénégal. ah xëy na Gambie defuñu Gambie e, ñu manifestation am. Mm-hmm. semaine bale passé rek ñu ngi fa woon. Mm-hmm. le douze bi ak le treize fa la ñu war a dellu. le dix fa la ñu jëm. te yaa nga fa. man maa nga fa bu soobee yàlla. amul lu ma mën a téye dem parce que bëgguma lu dul làmb. d'accord bu doon ma dem. d'accord père huis clos lan euh, wax que ne làmb ji noonu lay demee est-ce que d'accord nga ci huis clos bi. xam nga on a réalité réalités. Mhm. ku ne làmb vraiment ne maanaam dënd sabar ay bàkku lépp nga ci. waaw mhm. ah, vraiment lii làmb du football du leneen. mais à l'impossibilité ñu la tën. su fekkee mhm. foofu rek lañ mën a kii. rek. buñ ko su fekkee ne huis clos moo tax ubbi làmb ji. mais ñun on pour. waaw d' accord dernier tour de table lan yan solution duudu moom ngay apporter pour que làmb ji mën a dox ci anin bu rafet ci ren ji saison ren bii nii yan solution nga yaakaar ne lii bu buñ ko tegee lamb ji dina dox ci anam bu rafet en tout cas daal eh, solution bu ñu mën a kii moom solution bu ñu mën a def pour lamb ji dox moom mhm. mooy waxtaan rek mhm. te tamit eh, mooy responsabilité nit ñi rek. parce que nit fu nekk moom dëgg-dëgg dañ lay responsabiliser. d' ñu xam ne ñun ay kilifa lañ ay responsable lañ. d' accord tëgg comme ni ñu koy defee Gambie. d' accord ñu defee ko noonu Sénégal. d' accord yan solution ngay apporter. solution daal mooy solution ba nga xam ne def nañ ko ba football bi di am. Mhm. basket bi di am. Mhm. Euh, course fas yi di am. Mhm. boobu lañu war a def pour mu am. ministre bi si boppam vraiment moom moo talul moo bëggul làmb bi. d' accord nga tàggatoo waale. waaw di tàggatu leen gërëm encore une fois di leen encourager. Mhm. parce que làmb comme li ñuy wax. Mhm. ah sunu sport la. Mhm. Ah, képp ku ciy dugg ah na nga ko bëgg tal ko. c'est vraiment yal na leen yàlla fay. Eh, li ngeen bëgg. amiin ah yal na leen yàlla defal lu raw seen jort. amiin yaa rabbal aalamiin te dëgg journaliste nag. ah dee leen defar nag. sànq maa ngi seetaan benn. vidéo benn vidéo. bu ma juumul pour ne pas defe naa am neex la xaw ma. mbër kii dama dem ba journaliste bu ko poussé woon dafay ëpp. Mhm. loolu baaxul. journaliste day defar. d' accord waaw vraiment daal surtout. d' accord di jégalu <laughs> Doudou sa dernier mot. waaw léegi nag comme ni ñu ko wax tamit. xam nga am na fu ma mënoon a dugg damay bëre rek. Mhm.

Uh-huh. nañu wax ci lan lañuy dimbale. d'accord parce que nag yàlla saxul ku may xalamal. Uh-huh. wala tamit ku may waxal loo xam ne nekkul. d'accord lamb ji nag encore une fois. Uh-huh. mosuma fi amel nit cent franc. mosuma fi ñaan nit cent franc. mosuma fi leb nit nit mosuma fi jox dërëm. d'accord kon ma nga buy dimbale ñoom ñooñu lay dimbale mais du ñun. d'accord bu dee liggéey ci lamb. ñii seetaan lamb ay journaliste ngeen dem leen ngeen defi micro territoire ngeen laaj ñuy liggéey ci lamb. Sénégal ñëpp a ma xam. jaajëf lamb lañ ma leen di gërëm uh-huh. di leen di kontaante nag ci dalal bi ngeen ñu dalal rafetlu ci liggéey bi ngeen di liggéey tamit parce que liggéey bi rafet na pour lamb jëm kanam rek a tax ngeen koy def mm-hmm. jaajëf ñoo leen gën a bëgg Doudou di leen remercier Doudou di remercier président Batir également di jox euh, dig daje beneen jeudi incha allah euh, chaque jour chaque jeudi ngeen koy xaar jotaayu lamb dinañ leen ko servir incha allah amoon mbégte présente waat leen troisième numéro jotaayu lamb di leen jox dig daje semaine prochaine jërë ngeen jëf Hey, ay, bay, awa.